Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Resulullah sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslima. Yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen nekk ci ñun nekk ci bépp jullit bi hormati seydina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima yàlla nañu yàlla nangul suñu koor koor gi yàlla bu mu doon suñu mujj koor yàlla nañ ko oor ay ati at at lool dem ba tële yàlla man na ko yàlla na ko dogal liñ ci koor yàlla na ko yàlla nangu liñ ci yaakaar it yàlla na ko yàlla def tax na ba ñuy sant suñu jigéen ñi di jigéen yi daara yi nekk fii ci Géejawaay ci cité bii di amoon cinq Oustaz njaay mii di njaay Ndiaye yore leen ci wàllum njàng alxuraan ak fiqh ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm ci jotaay bii tey ngeen indi ñu loo xamee ne lu am solo la lool ci doomu aadama nit dafa wax ne ku ne la sangul sa tar la bëgg ku ne la sangul sa tar la bëgg nit nag boo de buñ de sangu waxuñu sangu ndox waaye nit. dafa am loo xam ne dafa koy topp daay man dappet te fee sangu ko ala kulaalin ëllëg mën na ko indi lorange muy bàkkaar koo gis muy dem ci suuf rek donte ne benn bàkkaar la am na ko sama complace yi nag lañ ci am nag yàlla xam nu mu tollu waaye lii koy mën a setal bokk na ci julli gii ñu bëgg a julli nii neem na ne yàlla salaatu tasbiya bii nga xam ne moom lañu fas yéene julli imaam Ndiaye jiite ñu ci loolu bokk na ci li nga xam ne dana setal bàkkaar yeni bàkkaar bàkkaar yu jëkk yi ak bàkkaar yu mujj yi boo nee bàkkaar yu jëkk yi rek mooy bàkkaar yi nga xamee ne bii nga xam ne togg nañ la jëf bu dee ne xale bu góor wax nañ ne jamono boo xam ne poxotaan yi mi ngi sax karaw kanamam mi ngi sax karaw mu génn li nga xam ne ndox di man yu boba boobaa jamono jooju di xëj na dana toll ci fukki at ak juróom benn baa juróom ñaar baa juróom ñett ça dépend ci constitution bu dee jigéen nag jamono bu gisee baax rek amaama boobu nag dugg na ci kalafi jamono jooju nag ba ilaa yawmi diin ba kër ba ngay génn àddina wax dëgg yàlla yaa ngi ci jaamu yàlla waa ne yaa ngi nit bàkkaar daf ko yomb ngir du ci ñun ñun ñi du ci ñun waaye suñu maam aadama la alayhi salaam la moo jëkk a def bàkkaar loolu nag moo ñu topp ba fii nag waaye yàlla ci mbaaxam ci yërmandeem nee na tooñ leen ma waaye di leen ma jéggalu bu ngeen ma jéggaloo ma jéggal leen li mu bañ kañ mooy nga nuur ci bàkkaar bañ ciy joge boo nuuree ci bàkkaar bañ ciy jóge ah bu boobaa kat loo gis ëllëg yow la waaye jamono boo defee bàkkaar tuub bàkkaar bi ne yàlla duma ko defati yàlla jéggal waaye nag ngalla nag nga góorgóorlu ba bàkkaar boobu nag nga bañ ci demaat tuuburu bi am na waaye nag tuub sax ci nag baaxul baaxul moo tax yàlla ci alxuraan di wax ne ah mooy jéggal bàkkaar mooy jéggal ku ko soob mooy musal timit ku ko soob waaye nag mooy duma yi ëllëg ku ko soob waaye liy wër te wër mooy ne lépp lu mu ci def rek dafa ko dafa ko ngir dafa nekk buur def ko ngir dafa nekk yàlla waaye daf ko def ngir wax dëgg yàlla moom moo ñu bind moo ñu sàkk waaye am na loo xam ne dafa ñu ko sant lii mu ñu sante wax dëgg yàlla mooy jàmmu ko wàcc ñu ci kaw suuf lu dul ñu jàmm ko nit ak jinne loolu mooy seen fonction ci kaw suuf waaye nag nañ ci góorgóorlu ba rëcc rëcc yi ñuy def nag ñi ñaan yàlla subhaanahu yàlla jégal ñu ko tax na ba bëccëg bi di bëccëgu am solo jigéen ñi ngi leen di sante ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla nañ ko yàlla fekke li ñu ciy def ni yàlla na ko yàlla nungu am nañ ci yaakaar di profiter nag di sant bu baax di ñaanal suñu maam ju baax ja baay Ibrahima Sakho radiyallahu taala anhu ah lii de bu amee ba siw ba mel nii man nañu wax ne mooy baayab jànqam baayu jànq salaatul fatiha euh, bii salaatul alana bi bii salaatul tasbiya bii baay Ibrahima Sakho moo ko def populairement daa nañ ko def ci ci biir néeg di tëju ngir sëkkër bu for la woon am na mag ñu ko xamoon te daaw ñu ko wax kenn. di ko def rek ak seen njaboot waaye moom dafa dem ba ab sa fële mu nag ca booru ca booru mbuur di ko fa def o àddina bépp loolu moo indi lii tey bon yàlla na ko yàlla lépp lu ñu def fii incha allah dana ci am walla parce que lépp loo xam ne def nga ko te jëkku ko def te tuyaa ba nekk ci tiin ala kulli aleen ba ilaa yumbi nii fu ñu ko def rek yàlla tubbal ci bon nag Imam Ndiaye dañuy faf gàttal nii rek. Eh, ñii nga xam man damay wax ne bu ñu indee benn masala wala benn xisa ñu ne ah xam nañ ko waay yow neel xam nga ko waaye am na koo xam ne xamu ko mos ko dégg wóor na mën a ci mbooloo mi am na ñoo xam ne ñu ngi soor ñëw fi tey ñoo xam ne salaatu tasbih yi xamul nan lañ koy defee xamuñoo cosaan bi lu tax mu wàcc kan moo ko wàccee fan la jaar waaye wax dëgg historique boobu le rafet na jamono ju ñu toog ñi ñu du ko fàttali bon imam Ndiaye imam Diène ci suñu imam bu baax la boroom xam-xam la mbokk la ci Semi Diouf mi ngi ci tafsir yi mi ngi ci alxuraan yi mi ngi ci jumaa yi quoi wax dëgg yàlla ku baax la yaakaar naa war ngeen xamante ko macha allah bon li wërte wër daal ci gàttal bu ñu fi jógee nag ba set wécc ak ngal la ngalla ngalla ngal la ñu moytu bàkkaar yu mag yi nañu moytu fen nañu moytu rambaaj nañu moytu jëw surtout jëw suñu mbokk jigéen yi yomb na leen lool lool lool lool ñaare ñaari jigéen fu ñu toog rek ala kuliyalin bala ñuy jóg rek jëw te jëw kat tardement lay doon parce que tardement bi mooy jamono boo xam ne yàlla oo nañu ëllëg ca kanamam nga jëw nit la nga ko jëye woon kat da ko fay te li koy fayee mooy sew yiw la ñuy jëw yiw wi tuyaaba yi nga xam ne moom nga am ci la yàlla rocc fay ko ka doon jëw tooba yi nga xam ne moom nga xeex fii ci àddina yi liggéey ko ba mu baax ñu wàññi ko tuuti liggéey ko ba mu baax tubaab yow lañ doon roccet fay ko ko nga doon jëw waaw boo ci dëkkee nag daay man dappet bu yàggee doo am dara la am ci yow yiw yëpp danañ ko fay te bu siw yiw jeexee kat ñoob la safara bon lu ko jar dara jaru ko bu ko waxtaan wu neex rek ngay jëw nit lu ko jar jaru ko la ngay war a waxtaan bari na waxtaanal sa njaboot waxtaanal sa jëkkër waxtaanal sa jabar waxtaanal ak say dëkkandoo ci waxtaan wu yiw te ba ñu dugg ci jiw dugg te jiw dafa bari façon xëy na oustaz dana ci ñëw bon nañ ci gën a góorgóorlu waaye ju baax dafa wax ne foofu lay daanale daf ne bala may jëw kenn jëw sama yaay bala may jëw nit jëw sama yaay comme suma yiw dañ koy jël di ko jox nit ma jox ko sama yaay moo gën ma jox ko keneen bon nag nañ ci gën a góorgóorlu yal na yàlla nangul bal leen ñu wax wasalaatu wasalaam ala rasulullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen baalu àq te di leen baalu àq di ñaan yàlla yal na yàlla boole baal ah ci kàddu yi gàtt rek tabaarakallaahu suñu mbokki jigéen ñi suñu yaay ak suñu bàyyi sunu yaay ñoo yóbbante ay kàddu ngërëm ci seen borom kër yi di wax ni ñoom ñooy ñi nga xam ni ñooy waa amoon cinq sunu yaay yi nee nañu amuñu seen fay nee nañu lii su taxawee yéen a nee lii yéen yéen a leen jàpp di naan feccum liir su neexee yaay jaay jàpp ca wagg ya yéen a leen gunge jàpp leen jox leen fit ñemeloo leen ba tax ñoom ñooy taxawal lii nee nañu yàlla yàlla fay leen ci yàlla yàggal yàggal ak ñoom may leen fan nu gudd wu ànd ak wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi cant gi ñu ngi ciy jiital ki nga xam ni mooy chef de quartier bi ñu nga ciy jiital fa tubaarakallaahu di imam silla Seydou Silla ñu ngi koy ziar bu baax a baax di koy ñaanal yàlla wér ak wér la mucc mucci mucc le di ci teg imaam bi muy imaam Njoon sunu si yi nee nañu ñu ngi lay gërëm di la sant di lay ñaanal yàlla fan gudd wànd ak wér ndax kii la jiite julli juróom wax dëgg yàlla saa su mu leen di gunge di leen teqatal seen diine ak seen farata kenn mënu ko fay yal yàlla fa may la fan gudd wànd ak wér di ci teg bàyyi daara. muy alxaaji abbas fa tubaarakallaahu sunu yaay yi nee nañu amuñu ca fay nan daal liñ lay ñaanal wér ak gudd fan ak wérle yaa na yàlla defal la ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal ko mboolem jullit waaw di ci teg suñu yaayi daara adam jang fa tubaarakal mooy yaayi daara ji waa daara ji yëpp taxaw nanu àndoo di la gërëm di la sant di la ñaanal yàlla wér ak wér la mucc ak mucc le barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu nag ki nga xam ni nag moo moo leen jàppale gannaaw ba leen seen kilifa yi jàppale seeni i kër yi mais al oustaz Ndiaye oustaz Ndiaye soxna yi gërëm nan la lool ñaanal nan la lool sant nan la lool nee na yal yàlla defal la jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa defal la teraanga. defal la wërsëg ak wér ak wérle barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu fa tubaarakallaahu cité amon cinq quatre cinq six ñëpp ñi ngi fi waaw Abdou Kader cité Abdou Kader ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen ñaanal yàlla wér ak wérle mucc muccale ànd bii yàlla na sax li naan dëkkandoo jàmm ca gën nii ngeen dëkkee jàmm ji ngeen nekk yàlla ngeen ko nekk ba aljana incha allahu taala ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu gàttali foofu kàddu yi rek incha allah jox kilifa yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey baalu àq di leen baal. ñaan ci borom bi subxanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy bàkkaar ginnaaw biñ jéggalantee rëcc rëcc yi dox suñu digganteeg suñu moroom jël nuyoo yi ak ziyaaraat yépp teg ko ci loxal imaam fa tabaarakallaahu mu demaaleel géew mboolem ku fi yeewoo walla ku fi ñëw fa tabaarakallaahu li nga xam ne moom lañu fiy taatan yàlla defal ñu ci ak nangu muy rekk jéggalug bàkkaar yàlla mën na ko sañ na ko yàlla nañ ko yàlla defal ci barke weeru màgg wii nga xamante ni eh, moom la ñu nekk fa tabaarakallah on bu ko defee rek eh, ñi gën a may nopp rek comme ni ko imaam waxe mbokkmi baaxeñu li nga xamante ne masa allahu moo làmb ci li nga xamante ne moo ñu fi taxa daje ndax itam dana jaadu képp ku mu mën a doon ku nekk looy yëngatu wala looy jóg di ko def buñ la laajee lii lan la doon si diine normalement war nga ne ko lii kat nàngam la ak nàngam bu dee farata nga ne farata la bu dee sunna noonu ba ca ngëneen nag wala dañ koo siba wala dafa araam yooyu def ciy gën a am solo day tax li nga nekk nga gën koo xam fa tabaarakallaahu asanul xaalixiin waaye buñ ko leeralee itam ëllëg ak si biir même boo fekk ni bii gisoo mbooloo mi nga mën a nekk ci sa biir kër bu boobaa nga di koo def te kenn du la déranger ci dara kon li olof di wax naan euh, ki lay may jën jàngalal ni ñuy nappe moo ko gën fa tabaarakallah ndax ëllëg ak si biir bu la gisul mën a dem nuural boppam mën a wutal boppam jën kon bu ko defee rek ah ñi may du yàgg incha allahu mun nañu tënkal li mu ñuy tënkal bu ko defee yemboog mbokk yépp toog daje ñi def li nga xamante ne moom lañ daan def bu ko defee delluwaat yeewu ko ndax ci weer wi nga xam ne moom la ñu nekk ak ndogu yi nga xam ne mooy xaar suñu mbokk jigéen yeeg yooyu yëpp fa tabarakallahu ñi gën ci bàyyi xel incha allah kon bu ko defee waa ah, oustaz tafadal mashkuran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 ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام إخوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جلتي في تيو غناو بنو سنتي سنو بروم سبحانه وتعالى دلو جلتي سنغو سنغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوغي لين دي نيو waaye itam ñoo ngi leen di ziyaara waaye itam ñoo ngi leen di ndokkeel ci weer wi nga xamante ni weer wu bari ay ngëneel la waaye itam weer wu barkeel la di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwun kenn waaye nag di jiital ci nuyo bi imaamul akbar di imaam jonn moom mi nga xam ni moom la sunu borom subhanahu dogal muy jiite jaami yàlla yi ci jàkka ji ak mboolem imam yi nga xam ni ñoo topp ci gannaawam naka noonu itam la ñuy nuyoo sunu chef de quartier sëñ Sila moom itam ñu ngi koy jox wàccuwaayam bu baax waaye itam naka noonu itam la ñuy nuyoo sunu baayu daara sëriñ Abbas ñaan ci taxawaayam bu am solo ci jàkka ji ak ci daara jigéen ñi. mu mel ni ab dëkk boo fa demee nag boo nuyoo imam nuyu chef de quartier daanaka wax dëgg yàlla ñu yóbbaale ñëpp moo tax sunu borom subhanahu wa taala bi mu sàkkee cent vingt quatre mille prophètes yónni ci trois cent treize boo demee ci alxuraan ña ngi fay fekk vingt cinq rek la kon vingt cinq yooyu nga xam ne ñoom la tudd ci alxuraan. ñëwee bale ñëpp loolu moo tax moo xam ne boo demee ci ab dëkk boo nuyoo seef de quartier nuyu imam wax dëgg yàlla ko fa teew rek yóbbaale nga ko kon sama nuyoo boobu ci ñaar ñooñu ñoo may yóbbaaleel mboolem koo xam ne teew nga fii ci tay bi tey waaye itam di nuyu nag sunu magum daara sëñ Tidiane njaay nekk nii nga xam ne moom itam ñu yàgg a xame lanu mu nekk ku baax nekk borom xam-xam alxames bi paase rek ñoo ngay def salaatu tasbiix ca sant nag waaye moo teewoon wéttalin ñu ak kàddoom yu rafet yaakaar Xaaji Tijaan jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm di la sagoo nag bu baax ci côté bu nekk naka noonu itam la ñuy nuyoo mbokk yi nga xam ni ñoom la ñoom la ñu àndal di mbokki ustaas yi. waaye bala ñuy dugg ci mbokki ustaas yi dañuy nuyu suñu imam di imam Moussa Gueye tey jii ñoo waroon a ànd ca pénitence waaye bi ñu ko ko yëgalee rek mu ne kon teewal ñu foofu ñu teewal la moom itam ñu ngi koy nuyu di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ak liggéeyam bu am solo boo xam ne ginnaaw yàlla lii lépp ci la soqi ko wax dëgg yàlla nag kooku kenn du ko fàtte benn yoon di ko ñaanal rek yàlla guddal fanam te wéral ay ciram di nuyu nag mbokk yi ñu àndal ah sunu xalifa woy jur di sëriñ Seex Ahmed Tidiane Ndiaye ca Saam Ndiaye moo agsi ni léegi nga xam ne fekke war na ko bee weesu tey jiitam mu bàyyat itteem yëpp ñëw fekke si ko yàlla dogal tey mooy sunu xalifa woy jur ca Saam Ndiaye di sëriñ Seex Ahmed Tidiane Ndiaye ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax di la masawoo ci yoon wi di nuyu Oustaz Mouhamed Ball di ko sant di ko gërëm ci teewaayam bokk na ci ñi ŋànk yi dëkkandoo jàmm ci gën waaye itam di nuyu al Oustaz Libaas Dieng moom itam miin ngeen ko fii ci jotaay bi mu bokk ci ñu nuy wéttali ci programme bi Oustaz yow itam jërëjëf waaye itam ñu ngi nuyu seen Jóob mii nga xam ne ca ndorte la ñu àndoon ak moom. muy rafetal fu waxtu wu jotee rek mu ñëw teew si sëñ Diop yow itam ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di nuyu nag mboolem ko fi teew waaye nag di beral nuyoo ak cant waa daara yi dëkkandoo jàmm ca gën bu amoo cinq teg nuyoo bi ak cant gi ci loxol sunu yaayu daara ajaratu Adam jang mu tegal na ko ci loxol ajaratu Khady mu séddal ñu ko mboolem koo xam ne bokk nga ci daara ji daara ji imam amuñu seen pay wax dëgg yàlla ku xool lu rëy li ñuy liggéey cité bi ci wàllu laylatul xadri bi ci wàllu gàmm gi ci wàllu koor gi bu dikkee sa tasbix bi ñii kenn amul seen pay bëgg daara ji lool fonk daara ji lool bëgg daara ji toujours muy gën di jëm kanam lu nu xalaat ni bu ñu ko waxee wala ñu jëf ko dana dundal daara ji dundal quartier bi ña nga ca kon jigéen ñi amoo cinq jaageen jëf mag mu baax nee na baat bu gàtt la waaye ku deful dara doo ko dégg de kon nag yéen jaageen jëf ak ñi ngeen ko seqal ci daara yëpp nga xam ne jii fekk si nañ leen xam naa nuyu rek bàyyi ndooy seen njaayu ndooy moom bu ñëwee fii teew rek moo teewal waa amoo sis yëpp fa tabaarakallaahu ak taxawaay bu rafet kaar ca jàkka ja ak taxawaayam bu rafet kaar ca yëpp rek yëpp rek fa tabaarakallaa mu mel ni kon mbokk yi kun tuddul sa tur rek jàppal ni sunu làmmeñu xol tudd na sa tur waaye sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp mu mel ni nag programme bi comme ni muy tëddee ñu ngi ci koor naam 15 heures moo tegal fukki minute amaana bu ñu demee tuuti balaa 4 jot rek daa ñu taxaw su ko defee incha allahu taala def julli gi bu julli gi àggee. ñi def ay dog bu dog yi àggee tàkkusaan jot ñu julli tàkkusaan daal di tàggoo ñaan yàlla nag mu may ñu fekk ko ak di bari lool mu mel ni kon mbokk yi yóbbal bi nga xamante ni bëgg nañu waxtaane ko ak yéen tey dañ koy joyal rek jëme ko ci asbaabu jan na sabab yi nga xamante ni bu ca nit ki jaaree di ko doxal na mu waree mën na tax mu tàbbi aljana yaakaar naan sunu jitaay bii yëpp wutuñu ci lenn lu dul njëggalu sunu borom te njëggalu sunu borom boo ko amee tàbbi aljana waaye boo amul njëggalu sunu borom doo tàbbi aljana kon nag fokk laaj na ñu fàttali konte ak yéen sabab yi nga xamante ni bu ci nit ki jaaree mën na ko jural mu tàbbi aljana insha allah taala yaakaar naa yooyu ay sabab la yoo xam ne am na solo imam xam nga ni njàpp am na ay sabab yoo xamante ni bu amee rek sa njàpp mën na caa jaaree yàqu ma tudd ci benn lu mel ni jàpp ba noppi tëdd nelaw nelaw yu diis nelaw yu diis yooyee mooy sabab bi nga xamante ni moo tax sa njàpp la yàqu kon aljana nag non la amé ay sabab yo xamanteni boko jaaré ci yoya ca yooya sañ la yaakar aljana yi ëlëk insha allah taala mu melni kon sunu borom subhanahu wa taala ci baxam mo wàcce alquranul karim waye wàcce ko ci wéru koor waye tam wàcce ko ci guddig laylatul xadri mu nekk di guddi goo xam ni alquran nee na moo gën junni weer te junni weer boo ko doon calculer fi mu toll nii juróom ñett fukki at la yu teg kon yaakaar naa bon nekkee ci weer woowu ñun ñi nga xam ne ñooy sangu xeet yi ndax seetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy sangu xeet yi toog ci weer wi nga xam ne mooy sangu weer yi fa tabaarakallaahu fas yéenee waxtaane li nga xamante ni mooy sangu téere yëpp mu de alquran ak sunna kon wàcc nan mu mel ni kon nag sabab yooyu nga xam ne bu fekkente nit ki def na ko mu mën koo jural aljana bokk na ca nga fexe ba góor-góorlu am lii ñuy wax at tawxid wal ixlaas mbokk yi lan mooy tawxid ak lan mooy ixlaas mboolem yent yi nga xam ne ñoo fi jiitu woon kenn ku nekk ba nga jëwee la nga doon woote moy wétal yalla baña jamm kenn ku dul yàlla bañ a lenn lu dul yàlla bañ kenn ku dul yàlla dimbali ko ci kenn ku dul ragal kenn ku dul kon moy nafyul uluhiyya wardu rububiya min khairillah da ngay dàq ak yàlla akuk njaamu ci keneen kom mën a doon kudul yàlla jàpp ne kon kenn rek mooy yàlla kenn rek lan war a jaamu muy sunu borom subhanahu wa kon loolu boo ko defee waaye ànd nag sellal jaamu yàlla ga boo ko defee aw nga ci yoonu aljana sëñ Abbas wéetal yàlla ci jaamu ko bañ koo rax bañ caa rax lenn ah nee na ak a jafe waaye wax na dëgg de so loola amee rek ànd ak nga sellal jaamu yàlla ga muy julli ga nga sellal ko génne asaka ga nga sellal ko naafile yi nga sellal ko mu bañ a wax lenn wax lenn aw nga aljana kon mbokk yi boobu mooy bi njëkk muy sabab yi nga xam ne boo ci jaaree man nga am aljana insha allahu taala kon wa tasbutu haaluhu azza wa jalla ay laa maabudun bi xaqillah nga saxal wéetal yàlla saxal kenn kennal yàlla ànd ak sellal sa jaamu yàlla bañ a jaamu kenn wala lenn lu dul yàlla xam ne moom rek mooy yàlla ndax nag sañ li yàlla bind ci àdduna yëpp di ay góor ak i jigéen di ay mag ak i ndaw di ay jinne di ay nit di ay malaayika bu nu àndandoo woon bëgg laa lor te yàlla tudd ko duñ man ci yow dara kon kay koy ragal ku yàlla ñom ñepp itam bu nu àndandoo woon bëgg la jariñ te yalla andu ca don la mëna a du doy ni tarfatul ayni kon kay ko wara yaakar ku dul yàlla mag mu bax ma mam khadim rasul waxon wax ju am solo muni ni jang alquran dal ba gis wa ma min dabatin fil ardi illa ala lay la laa ñàkk a te kenn ku dul ba ma gisee wa ma umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu dina laa ñàkkate jaamu kenn ku dul yàlla mu jeex kenn nga ko defal ku dul yàlla kon nag benn tomb ngoog mbokk yi ñaareelu tomb bi bokk na ci yi nga xamante ni boo ci jaaree am aljana ëllëg moo di al infaqu fi sabilillah dépenser ci yoonu yàlla moo xam lu néew la moo xam lu bari la dépenser ci yoonu yàlla dafa am solo yàllaa ngi misaal dépassé ci yoonu yàlla mu ni masalul lazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fii kulli sunbulatin mi'ata habba mu ni misaalam gaa ñi nga xam ni dañuy génn seen dërëm wala seen ñaari dërëm di ko dépassé ci yoonu yàlla ni ko yàlla di misaale mi ngi mel ni baykat boo xamante ni nawet dafa jot mu jël benn pepp dugub dugal ci suuf pepp dugub boobu sax génne juróom-ñaari gub gub bu ci nekk am téeméeri pepp yàlla nee na noon lay misaale ki jël dërëmam wala ñaari dërëmam dépassé ko ci yoon yàlla kon gis nga dépassé ci yoon yàlla dimbilee te yàlla tax xettilee te yàlla tax jàppalante te yàlla tax daa bokk ci li nga xamante ni daf lay jural yoonu aljana yombul nag waaye yàlla nañ ci yàlla saxal kon ñaara ngoog mbokk yi ñetteel ba bokk na ci yi nga xamante ni mën naa tax nit ki am aljana aljana te mooy sabab bi moo di alxuluqul xasana nga góor-góorlu nag fexe ba amee jikko ju rafet nga góor-góorlu fexe ba amee jikko ju rafet Nam ali satu wasalam biko sunu borom di tag boba tara nga fa waye tagu ko ci tar boba xam xam nga fa ndax mo upp ñepp xam-xam waye tagu ko ci xam-xam boba juddo nga fa ndax mo gëna rafet ñepp judd waye tagu ko ci judd waye ci lu ko tag ci jikko ju rafet wa innaka la ala khuluqin azim mbokk yi kon ndekete woo jikko ju rafet daa bokk ci yi nga xamante ni boo ko amee sa yoonu aljana taxaw na ah ñu góor góorluwaat nag jëmbataat ci sunu xol yi makaarimal axlaax mooy tedd ngay jikko kañaan day ku mu nekk ci yow tedd ngay jikko amuloo ko jëw gi imaam doon wax léegi ku mu nekk ci yow amuloo tegg dangay jikko ngistal rëy njaaloo soxor ak yen ak yéen yu ma tuddul ku mu nekk ci yow amuloo tedd ngay jikko kon tedd ngay jikko lu am solo la kon nan rafetaat jikko yi am na yoo xam boo duggee tey ci internet bi ya ngay dégg nit ñi di ko def ak di ko wax lu ci ëpp mooy ñàkk am jikko yu rafet waaye bu ñu amoon jikko yu rafet am na loo xam ne doo ko wax waaye am na loo xam ne doo ko def abadan kon ñu góor góorgóorlu fexe ba jëmbat ci sunu xol yi ay tedd ngay jikko mbokk yi jikko ji rafet am na solo waaye jikko ji ñaaw baaxul yàlla nañ ci yàlla musal moo tax kon alxuluqul xasana am solo innama almuminuna ixwa kon fa aslihu bayna axawaykum mbokk yi kon di jàpp ne jikko ji rafet daal am na solo lool muy ñetti point wax naa la wéetal yàlla wax naa la dépensé ci yoonu yàlla wax naa la góor góor lu fexe ba amee jikko ju rafet yii yëpp bokk na ci yi nga xam ni boo ko manqué wul aw nga yoonu aljana ëllëg yowmal qiyaamatil akbar mbokk yi ñeenteel ba moo di al islaaxu wal ixsaanu ila naasi lu am solo yéwénal ak rafetal jëme ci nit ñi parce que ñoom nga dëkkal ñoom nga nekkal kon il faut nga rafetal sa diggante ak ñoom bañ a ñaawal sa diggante ak ñoom parce que àddina yàggul àddina daal diggante ñaari sujjóot la fi nga sujjóoti sa sujjóot bu njëkk ba siggi avant ngay sujjóot ak deuxième sujjóot bi loolu mooy àddina te kii sujjóot dana sujjóot ñaari sujjóot sujjóot bu njëkk ba te booy rukkoo benn rukkoo ngay rukkoo lu waral loolu benn rukkoo moo am ci julli te booy sujjóot ñaari sujjóot ngay sujjóot ñu ne sujjóot bu njëkk bi dangay ngay seedeel suñu borom ni ko ci suuf sii laa jóge woon ñëw ci àdduna sujjóotum ñaari mooy lu ma fi yàgg yàgg yàgg ak lu ma fi yàggati yàggati yàggati bis dina ñëw ci biir suuf laay delluwaat. kon digënté ñaari jot moy dunduk doomu adama kon lu fi jar ñaawal lu fi jar tilimal lu fi jar yaq sa digënté ak sa mbokku jullit nanuy rafetal mbokk ya wala bok mbokk yi mo tax suñu borom bax ni julit yépp ay mbokk lañu imam dinaa ko fal dégg mu neex ni li gëna jafé nak moy fa aslihu bayna akhawaykum rafetal yewenal baxal selal ci digënté yi laaj na kon bu ñu toogee ci jotaay yu mel nii ñuy fàttalente lu ñuy jariñ ndax amaana boo jógee dem sa kër ni ah oustaz kat waxtaane woon na nangam ci ay point yoo xam ni boo ko toppee mu jural la aljana nga ne kan naa góorgóorlu ci yooyu mbokk yi ba ko juróomeel moo di imaatatul aza ani tariqi moo di yaa ngi dox ci aw yoon ba yàgg nga gis luy lore nga toppale ko loolu itam bokk na ci li nga xam ne te mën na la jural aljana ëllëg te nga xeeb ko lool bant buy lore walla xeer buy lore wala yeneen boo ko toppalewul kat mën naa lor kii nga toppale ko loolu yiw la woo xamante ni mën na la jural aljana ëllëg moo tax ma wax ni yonent bi sam nee na bu kenn ci yenn xeeb yiw ndax xamuloo ban yiw ngay xeeb mu dugal la aljana waaye itam bu kenn ci yenn xepp bàkkaar ndax xamuloo ban bàkkaar ngay xeeb mu dugal la jahannama xoolaat rek di dox ba yàgg nga seen benn bant nga toppale ko xeeb ko lool ndeke mën na la jural texeg al texeg ëllëg yawmal qiyaamatil akbar mbokk yi kon juróom a ngoog juróom benneel ba nag mooy alxaya mooy nga góor góorgóorlu fexe am kersa sëñ Abbas daanaka kersa léegi mënuma wax ni amatul waaye lu bari jóge na fi ñàkk kersa goo xamante ni am na ci lennat ci ay mag ak ci lennat ci ay ndaw ba tax na lu la neex wax lu la neex def kooku ñàkk kersa la nu la neex solo te jigéenu jullit am na nu mu war a jigéenu jullit am na nu mu a waxe am na nu mu a doxe am na nu mu war a defe xataa ba ci jullit bu góor sax ku ci nekk dafa am yu la sant waaye léeg-léeg ñàkk kersa dina tax boo soloo yow ku jigéen ki génne ci kër di dem mag mënu yar bu génnee jàkkaarloog yow du la ñemee xool te mënta bañ a xool loolu ci ñàkk kersa la bokk te nag alxayaau la yati illa bi xayrin sànq bi nee na kersa du andi lenn lu dul yiw te yiw nag aljana rek la lay dugal kon ñu fexe ba defaat ci xale yi ak ci njaboot gi lii ñuy wax kersa ndax moo amoon démb de aka bari woon waaye léegi lu bari tuxu na xaw ma fu mu jëm waaye bokk na ci li ko gën a waral internet bi xas gor wax la neex def la neex te sax doo faale nekk ak sa wayjur ci biir kër gi yëgoo ni sax mi ngi ci biir kër gi bu njëkkoon ci kër yi boo nekk ak sa wayjur boo xëyee yaay njëkk a dox dem fëgg sa nekk wayjur asalaamaaleykum nuyoo léegi sax da ngay xaar léegi sa wayjur moo lay nuyu ana kersa ana kersa. loo mën di am jëru ko noo mën di mel jëru ko parce que ki kaw mooy sa ñaari way jur mbokk yi kon bokk na ci sabab yi mooy sukrullahi ala niamihi sant yàlla ci xéewal yim la defal lu am solo mbokk yi léegi jàmbat yi bari na jàmbat yi bari na te kenn ku nekk boo xoolee sa bopp xam ni am nga loo xamante ni war nga caa mën a dëkkee sant sunu borom waaye jàmbat rek sunu maam ju baax ja ci Tiwaawan sëñ Babacar Si daana fa di wax ni zarru sikaayata te remplacé ko cant am déet koo dajal ñaare ne ko affaire yi mu ne ah affaire yi doxul ah kay affaire yaa ngay dox mbokk mu baax nee na bala maa jooy jàpp ma dégg koo la xal mun la affaire yi doxul ma ne affaire yi waxuma doxul sax waaye day daw sax bu nu xoolee quartier bii démb wala barki démb nii kër yi mel melu ni woon am déet boo xoolee sa jëmm yow nii nga mel melu woon kon kay sant bu nu xoolee jàkka ji ndorte ba dam meloon ak di mel léegi bokkul woon léeg-léeg ma faral di wax ne Saam Njaay gama dëkk tey mag ñi ko sancoon boo leen yeewoon ni leen saama ngi ni ñu ne déet fii du saam njaay kon mbir yi waxuma laa doxul waaye day daw sax xanaa kay xeeb li nu sunu borom defal waaye nanuy sant mbokk yi sant lu am solo la suñ la laajee naka affaire neel alhamdulilah su ko defee sunu borom di la dolli kooku itam yaa ustaas bokk na ci yi nga xam ne mën na la jural yoonu aljana ëllëg mbokk yi juróom-ñeenteel ba. mooy kasratu sujuudi bari looy sujood bari looy naafila bokk imaam Tijaan bari looy sujootal yàlla am na solo de bari looy sujood am na solo am na solo bari looy la am na solo bañ a yem rek ci farata yi bañ a yem rek ci farata yi waaye nag léeg-léeg nag wax dëgg yàlla nga dolli sax ci la yi am na solo de kon bari looy sujood ndax was jut wax tarib su jootal ndax nga jigéen sa borom jamono bi ngay su joot ngay gën a jigéen sa borom kon dañuy su jootal suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi loolu na ci sabab yi nga xamante ni mën na tax nit ki tàbbi aljana mbokk yi beneen ba moo di atawaadu lillah mooy wàcc sa bopp wàcc sa bopp toroxlu te yàlla tax عليه الصلاة والسلام nee na man tawaadaa lillaahi rafaahu llah ku wàcc sa bopp te yàlla tax yàlla yëgal la waaw yow lan moo fi jar rëy rëylu bi mbaadu ak wér la xanaa xamu ne am na ku la ëppoon ak wér fuuf tey ma nga tëdd ci loolu hôpital yi lu mu def tan koo defal kon bu la wér gi jay mbaadu xam-xam la am na ku la ko ëppale fuuf mbaadu tarla, taar la am na ku la ko ëppale foofu mbaa judd la am na ku la ko kon wàcceel sa bopp jullit dafay toroxlu wàcce boppam waxuma nag doye di waaye da ngay wàcc sa bopp bañ a rëy rëylu ah sëñ Abbas sol yére yu rafet nag ak dàll yu rafet montar bu rafet kër gu baax bokkul ci rëy rëylu noonu daa bokk ci bëgg sa bopp ndax dafa am benn bis benn waaye ñëw ci yent bi sallallahu alayhi ni ko waaw ndax sol dàll yi rafet yére yi rafet nangam nangam daa bokk ci rëy rëylu mu ne ko déedéet inna allaha jamaalun yuhibbul jamaala yàlla ku rafet la ku bëgg lu rafet la kon defal kër gi ba mu baax solol yére yi rafet lekkal lu neex takkal takkaay yu baax waaye nag bu ci rëy rëylu sante ko yàlla ndax wa ama bi ni'mati rabbika fa hadis bëgg nu suñu borom defal la tiranga ba nopi ku loo xool tiranga ba feñul ci yow dedet kon delloo won jukal suñu borom subhanahu wa taala mbokk yi kon wàcc sa bopp mi ngok te yalla tax yoonu aljara ngok xamna mbokk yi may deglu mo xam goor ñi la mo xam jigen ñi la mo xam mag ñi la mo xam ndaw ñi la amna yaakar ci ni ngi baax poy yi may wax te mën laa jural aljana ëllëg waaye am naa yaakaar bu baax ni daa ngeen ko jima jëfe wala bokk daa ñu ko jima jëfe ëllëg incha allah bu ñu fi jógee mbokk yi bokk na ci fukki point ak ñaar ci nga xam ne boo ci saxee mën na laa jural aljana moo di silatu mi jokk ak mbokk jokk ak mbokk imam Baal lu am solo la ak mbokk dañ koy jokk waaye dok ko dog bu gàtt sang bi ne sil man xata aka même ki lay dog sax yow jokk ko kiy wax lu ñaaw ak di jëf lu ñaaw jëme ci yow yow waxal lu rafet jëme ci kon jokku ak mbokk daa bokk sax ci lii guddalu fan te alayhi salaatu wasalaam nee ñaari jéego amul jéego yu ko féete kaw ñu ne ko ban jéego mu ne imam saw mais nodd na ci jàkka ji nga jàpp sol sa dàll jéggi say tànk dem julli ji jéggi yooyu amul jéego bu ko ëpp solo ci kaw suuf ñu ne ko ak ban ñu ne ah diw mee kat feebar na nga sol sa dàll dem jokk ji ko wala sol sa dàll ba dem jokk ji ak mbokk ñu ne jéego yooyu jéego ëpp ko ci kaw suuf kon ñu rafetal baax ci jokk ak mbokk waaye bañ koy dagg mbokk yi bu am solo mi ngi nii di ñëw maa ngi jën moom muy fukkeelu point bi ak ñett ñu ni mbooy ban ñu ni birdul walidayni rafetal ci sa ñaari waajur ah boobu de ñu ndaw ñi ci biir la may ka ah, ndax mën nga ba ko leeral lan mooy jokk bokk waaw lan mooy jokk bokk waaw ah, wax ma ci benn lan mooy jokk bokk. jokk bokk maanaam mooy comme da bokk mooy tuddante ay doom. ak mayante ay soxna. nee doxu mbokk nag tànk koy def boo ko tànk defatul rek mbokk ko commencé yàqu jërëjëf sax ci leeral boobu mbaa loxo mbaa téléphone imam jonn mbokk kon bokk na ci rafetal sa ñaari way jur ay waay yéen ndaw ji ci biir te yàlla dogal tey ngeen di dundandoo ak seeni way jur naa ngi leen di sant bu baax ngeen di rafetal fu ngeen toll seen ñaari way jur ndax way jur kenn mënu koo fay boo ko yóbboo màkka mënoo koo fay soo ko jëndalee oto la mënoo fay soo ko tabaxalee kër mëno ko fay soo ko dépasse bi mënatoo ko fay ndax ba nga mënul dara mom la won té itam mo la taxaw ba lo am tay nga am ko mbokk yi rafetal sa ñaari wayjur ali sattu asam neena bu yalla kont bu ñaari wayjur kontane rek yalla kontane da far de waye ne bu ñaari wayjur mere rek yalla mer ridallahi fii ridal walidayni wa suxtallahi fii suxtal walidayni mo taxone man mi ben bis ma tok ba yag sama xel dem ci sama yaay ak sama papa sen cheikh di sun taw wajur mi ngi tok mané man day bàyyi mënuma ko fay yaay mënuma ko fay ma jël sama xalima commencé way sama papa ak sama yaay ma sama yaay nag ma bal sama Baye nag ma bal àqu njureel tiis na lool mënuñu leen fay jafte ay fani fan am bu juróom-ñeenti weer billahi ku naa mali fay man di ànd ma ci ma ni keroog ba nga wasinee yaakaar ni da ngay noppalu yar bi faf gën a met billahi doom fayul way ma ni bu jëkkoon nag doom tiitar la waaye doomi tey coono la kon loolu bu amee ana lan moo ko waral xale yi góorgóorlu leen góorgóorlu mooy waru gar mu di jigéen wala góor góor looy may ndam kon buur yàlla fayal ma baay buur yàlla fayal ma yaay dama leen ni delloo njukkal aw seen fay gor su ne war ngaa jiim jiima jiim ba keroog ngay tële xam nga ne ndey ak baay fay leen jafe na lool loolu laa defoon ci talif ba kon nag mbokk yi rafetal sa ñaari way jur bokk na ci yi nga xamante min asbaabi duxulil janna fukkeel ba ak ñeent ci sabab yi nga xam ne mën naa tax nga am aljana ëllëg moo qiraatul quran wal amali bihi góor góorlu di jàng alquran te di ko góor-góorlu di jàng alquran ak di ko jëfe mbokk yi xanaa xamoo ne afdalu ma taxarraka bihi lisaan qiraatu alquran afdalu ma taxarraka bihi lisaan qiraatu alquran li gën ci loo xam ne làmmiñ dina ko yëngatu di ko tudd mooy jàng alquran nan góor-góorluwaat ci jàng alquran ak di ko jàngal njaboot yi wax dëgg yàlla ñi ngi sant jur yi fi teew tey jii tey seen soxna yii tey seen daara ngi ne àllarba bu jot ajjuma bu jot luñ jàppoon bàyyi ko ñëw di góor góorlu pour xam seen diine ba ñoom ñëpp tey ku ci nekk boo ko joxee téere mu mën a liiral boppam boo ko laajee faatey julli mu wax la ko boo ko laajee sunnay julli mu wax la ko soo ko waxee nga dina julli mu wax la ko loolu nak taxaway bu rëy la yéen soxna yi jaa ngeen jëf yéen wa dara ji kon jàng alquran andak diko jëfe loolu itam bokku na ci yoon wi nga xamne boko wàccul man na la jural aljana ëlëk mbokk yi fukkeel ba ak juróom mooy al amru bil maaruf wa nahyu anil munkari waay waay digle lu baax ak tere lu bon daa bokk sabab yi nga xamante ni boo ko bàyyiwul man na la jural aljana ëllëg kon nañuy digle lu baax waaye itam nañuy tere lu bon alayhi salaatu wasalaam netti lanu ni sunu borom nee na tagg na xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye li mu leen taggee mooy digle lu baax ak tere lu bon kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas lu ko waral muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkari kon nañuy góorgóor digle lu baax bul ni wax naa ba sonn déedéet tee naa ba sonn déedéet lu baax kenn du ci retraité waabud rabbaka hatta yahtiyaka al yaqin yàlla wax na sidna Muhammad sallallahu alayhi ni ko deel jaamu yàlla ba dee ñëw deel digle lu baax ba dee ñëw deel tere lu bon ba dee ñëw waaye bul mukk bul wax mukk wax naa ba sonn digle naa ba sonn wala tere naa ba sonn déedéet waaw mbokk yi mu defal ñu rajo bu baax ndax wax ji àgg ci ñëpp mbokk yi fukkeel ba ak juróom benn bokk na ci point yi nga xamante ni mën na la jural aljana ëllëg moo di arifq bil xayawaan am ñeewante ci bàyyi ma yi moo xam xar yi la moo xam fas yi la moo xam bëy yi la moo xam moos yi la moo xam nag yi la moo xam yeen ak yeneen bàyyi may daal nga fexe ba am ñeewante ci ñoom lu am solo la mbokk yi su ma la bëggee tënkal tënk bu gàtt ngir mbokk mi nga xam sama ginnaaw tey soog a ñëw ma xamal ko ni ko ñu ngiy waxtaanee tey sabab yi nga xam ne mën na laa jural aljana ëllëg mooy wéetal yàlla dépassé ci yoon yàlla góor-góorloo amee jikko ju rafet di jëf-jëf ju rafet ak di rafetal ci doomu jàmm yàlla yi di toppale luy lore ci aw yoon fexe ba am kersa fexe bay sant yàlla ci xéewal yi la defal bari looy sujjóot waaye wàcc sa bopp waaye tam di jokk ak mbokk waaye di rafetal sa ñaari jur waaye di jàng alxuraan te di ko jëfe waaye nag di déglu lu baax ak di tere lu bon foofu lañ ak ban am ñeewante ci bàyyi ma yi xanaa xamoo ne am na benn jigéen boo xam ne dugg na safara te li ko ko yóbbee mooy toroxal muus waaye xanaa xamu ni am na koo xam ne dugg na aljana te la ko ko yóbbee mooy teral xaj te ñoom ñëpp ay jaam yàlla lan ay bindeef lan waaw ki teral muus ki toroxal xaj dugg jahannama ki teral ab xaj dugg aljana boo teralee doomu aadama nag te doomu aadama la yàlla gën a fonk lan mooy pay ga xanaa aljana rek mbokk yi bokk na ci point yooyu itam yi lay mën a jural yoonu aljana ëllëg moo di taatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam topp yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam topp sunna sayidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi man yuti i rasul faxar ata allah man yuti i rasul faxar ata allah nee na ko topp yent bi rek nee na topp ga yàlla loolu nag dinaa ci andi benn misaal bu gàtt dafa am ñetti aay yoo xam ni dañoo lënkaloo te benn munta dem bàyyi borom ma Oustaz Bal nee na salaasa ayatin nazalat maqrunatan bi salaasin dafa am ñetti aay yoo xam ni dafa wàcc waaye lënkaloo ak ay mbir ñu ne ko ban la mu ne laa yaqbaru llaahu waaxidatun minhunna bi xayri qarinatiha yàlla du nangu mukk nga ba jëf benn bi bàyyi ba ci des moom kay ñaar yëpp nga defandoo ustaas baal ni ma boobu bat la ustaas ma ne ko ba ci njëkk mooy wa aqimu salaata wa aatu zakata foo ko dégg ne ñoo ànd joxe julli ak joxe asaka nee na fa man salla كيف كو خامني يانغي جولي جولي جوروم ولم يؤد الزكاه تدو جوخي اسكا لم تقبل منه صلاه يالا دولا نانغول سوك جولي كون نيو لان كلو جوخي جولي اك جوخي اسكا استاذ بال نينا فوكو فك تي القران نيوم لا يالا بولي دو لان كلو ني نكو اك بان اتي الله واتي الرسول توب لين توب يننتي بي ñoo lënkaloo munoo topp yàlla te top da doo topp yent bi salaay salaam moo tax mu ne ata allah kep ko top yalla walam yuti Rasulullah rasula te topo sayyidina muhammad alayhi wasallam ay diglem lam yuqbal minhu Ken dula nangul sa top yalla ñu ne ko ak ban mu ne anuskur li wali walidayka sant ma sant se ñaari wayjur oustaz yaa ngi dégg de sant ma waaye sant seen ñaari waajur kon fa man sakara laa ku sant yàlla walam yaskur li walidayhi te santoo sa ñaari waajur yàlla du la nangul sax sant yàlla moo tax mu ni kon topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa bokk sabab yi nga xëy mën na laa jural aljana kon yàlla na yàlla wërsëg nañu ñu mën di topp sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ci digleem ak ca li nga xamante ne moo di ay tereem. bu ko defee kon bi ma ci dolli rek doon takka bari na waaye waxtu wee xat ma dolli ci beneen boo xam ne bokk ne sabab yi nga xam ne mën naa jural nit ki àjjana mooy as sabru muñ muñ Oustaz Baal dina yombul de asabru an asabru fii ak ak sabru ala muñ coonab jaamu yàlla waxtu njël seddaay bi lal ba imaam tabarakallahu sëñ abbas ne allahu akbar asalaatu xayru min nawmi soo muñul danga nga xëccaat sa mbaan sàgguwaat kon muñ coonab jaamu yàlla mooy asabru ala Oustaz Bal asabru an mooy muñ banneex loo xamante ni bànneex àdduna kese la te boo ko toppee mu jural la musiba nga muñ ko ne loo itam lu am solo la kon muñ xanaa xam ne mbokk yi innama yofa saabiroon ajrum bi xayri isab sunu borom nee na la muy fayee muñkat yi ëllëg mooy ñëw rek kenn du la régler sax directement aljana kon yal na yàlla may nu xolub muñ ñuy mën di muñ fun mën di toll muñ daal am na benn waay boo xamante ni bi mu bi ko suñu borom mayee pouvoir muy dekkal bi mu dekkalee benn waay ba koo ko dekk mu laaj kan ni ko waaw su la yàlla mayoon bàyyiwaat la ci àdduna lan mooy nekk sa arme mu ne ko ñaar mu ne ko ban ban la mu ne ko mooy muñ ak doylu muñ ak doylu muy àdduna soo muñul sonn soo doyluwul sonn kon yal na bay baynu ñi man di muñ waaye itam ñi man di doylu ci leen am mbokk yi bëggoon nanoo gën a guddal waaye ku ne xam ne léegi sunu magi jàkk yi ñu ci bari léegi ndeysaan tànk yi ak toogaayu yàgg yi moo tax ñuy jéggul rek guddal bi tënk ko foofu tey xam rek ni euh, lii duuf ci nag wi xajandoowul ci cin li ba déwén rek jàmm incha allah ñi ngi ñaan yàlla يالا بوكيت نمانكي تيت لين في واجي داف يالا نكو يالا نانغول لغي نك ليس موي ني جوخ لاستاذ لباس مو واخ لين جولي غي نكا لاي دامي سو اغالي ريك ني يادي سوبو تي ليغي بي ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خير يعني يالا فاي فتبارك الله احسنت واكملت alna yàlla mottali bi jaay seydi salallahu alayhi wa sallam kon bu ko defee ni ñu ko déggandoo noonu rek yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp ba bu ñu demee man ci yar njaboot gi ku nekkul woon ci jikko yi itam jéem a góorgóorlu dal di ciy nekk ndax loolu rek ci am solo def ndigali bàyyi tere yi masa allahu li la yàlla dénk itam nga boole waale leen ci bu ko defee ni ñuy waajo julli muy euh, julli salaatu tasbix euh, yenente bi sal alayhi wasallam moo ko joxoon bàyyam bu ndaw boobu ñuy tuddee abbas ndax dañu toogoon jekki jekki rek ñuy waxtaan ca jamonoy jahiliya léeg-léeg avant ngay dugg ci diine ji bàkkaar ya nga doon njëkk di def tey bu fekk ni bi bu dee ñun ñii ñëpp si diine sax lañ judd màgg ci mais man nga ne kon avant may doon paa jamono bi may doon jeune doon garaa waaw bi may doon jànq ni ma daan nekke ak tey bi ma doonee meer mu xool diggante bi mu am ak wuute ba léeg-léeg ya nga doon def bu njëkk ci ay ay ñaawteef mu doonoon lu métti seen biir ba duñu xam nuñ koy def ci la ko yonent bi sala alayhi wa sallam ne ko kaay ma jox la julli gi nga xamante ne boo ko defee incha allahu yàlla dina leen jéggeel seen bàkkaar yooyu ngeen doon def moom la imaam doon junji léegi muy yi nga xam ak yi nga xamul yi nga tey ak yi nga tayul yi nga gis ak yi nga gisul yi feeñ ak yi nëbbu yépp fa tabaarakallaahu borom bi subhaanahu wa taala dina la ko euh, jéggal mu ne ko boo ko manee góor góorlu sëg dund saa yoo xëyee bu la ko temps bi mayee nga julli ko waaye xam na suñuy xat-xat ak yitte yi mu ne ko bu dee bis bu nekk day xat ci yow te ci ay bàkkaar lañ dëkk mu ne ko na nga góorgóorlu ba semaine bu jot nga julli ko muy wa semaine bu bu jot nga def ko ci benn yoon mu ne ko bu dee xat itam mu ne ngeen góor góorlu ba weer wu jot ngeen julli ko ci waaw mu ne ko bu dee weer wu jot itam day xat ci yéen na ngeen fexe ba at mu jot ngeen julli ko mu ne ko bu fekkee ni bii itam at mu jot itam dafay xat ci yéen mu ne na ngeen fexe ba seenu dund ngeen julli ko ci benn yoon kon yow liñ naan euh, séddale la rek boo xam ne yow yaay tànn sa bu la neex te rawatina jaamu yàlla gi nga jël ci boo xamante ne ba nga ca gën a sax yonent bi salaa salaam nee na boobu moo gën ca yàlla fa tabaarakallaahu comme ni ko mbokk yi di defe nii xam ne jataay yi xëy na man na xaw a metti ak dajaloo gi ni mu jafe ñoom ñi tànn ne nañ ko def at ba at fa tabaarakallaahu jël di jël nag lii di weeru koor ngir yaakaar joo xamante ne am nañ ko si mbur ñi ko fii jéem a defal même bu dul weeru koor sax man nga ko def ci yeneen waaye itam ah wala bu dee semaine nga jël bisu aljuma yooyu yëpp yaakaar lañ ci am waaye teewul yëpp bisi bisi yàlla la semaine itam semaine yi borom bi la subhanahu wa taala mu ne ko ni koy jullee ñeent ràkka lay doon nga def ñaar sëlmal defaat ñaar sëlmal bu la neexeen nga boole ñaari comme ni koy defe muy def ba taaya andiwaat waaye daal alaakule xaal ginnaaw boo yéenee ne yaa ngi fas yéene julli julli gi muy salaatu tasbix mooy ginnaaw boo jàngee sa faatiha ci sa saar wala aaya bu mu neex yaa xam loo ci tànn nga teg ko ci comme booy julli sa tisbaar jàng sa faatiha pare teg ci sa saar wala teg ci sa aaya boo ko defee ba pare nag ci ngay door a wax baat yi moo tax ñu tudd julli gi julluk sàbbaat muy lan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar boobu ngay répété 15 fois fukki yoon ak juróom subhanallah wala neet am na yoo subhanallah walhamdulillah de ci boole wa ba tey yépp benn la sotti ceeg def ci la rek waaw andi gi baax na ñàkk gee andi kenn du la ci bindal bàkkaar subhanallah alhamdulillah laa ilaha illa allahu akbar boobu ngay wax 15 fois ginnaaw bi nga jàngee faate fatiha teg ci sa saar boo àggalee nga jàpp say óom wax subhaan rabbi al azim boobu ngay wax ñetti yoon boo paree nag ci ngay doora indiwaat andiwaat répété subhaanallah alhamdulillah laa ilaha illa allah allahu akbar moom nga indi ko fukk yoon waaw boo siggee ca sujjóot ba sa sa ba nga jug taxaw foofu bala ngay dem da ko fay waxaat diis waaw dem door a roj sujjóot ginnaaw bi nga waxee subhaana rabbiyal ala ñetti yoon moom itam nga indi ko maanaam julli loo fa daan def rek boo ca noppee ca koy def waaw nga andi diis moom itam siggi ci toogaay bi muy sujjóot ba nga def diis delluwaat sujjóotaat muy sujjóotu ñaareel nga def dix foofu dañu miinoo boo jógee sujjootu ñaar bi da ngay jug taxaw mais bii da ngay toogaat defaat yeneen dix door a jug andiwaat faatiha ak saar toujours faatiha ak saar yooyu 15 15 nga fay def yeneen yu dul taxawaayu faatiha ak saar are bu ne 10 10 rek waa ñu ne waa bu fekkee yaa ngi topp ci ginnaaw imaam nga am 4 wala 5 rek imaam ne allahu akbar nee na doontale yooyu nga am dagg ko fa topp sa imaam ndax moo lay mottali bul ne sa gaay bi gudd na balaa balaa balaa siggi ma pare gaaw dem fekk ko dab ko déedéet fu mu sëggee rek foo yam toppal sa imaam bàyyi ko ndax kenn du la si bindal bàkkaar loolu mooy ki nga xamante ne moom moo koy gàtt fa tabaarakallaa sunu xaal yi noonu lañ koy defee boo defee ñaari rakka taaya moom itam nga andi diis bu dee da ngay sëlmal nga sëlmal bu fekkee ni bii sëlmaloo bi nga indee diis ba pare nga door a jugaat ba ca taaya bu mujj ba itam nga defaat diis arrêt boo def si julli gi rek la nga fay def ginnaaw booba ca ngay indi diis diis bu dee taxawaay ya nga def quinze quinze quinze fa tabaarakallaahu noonu lañu koy jullee kon bu ko defee ñi gën koo bàyyi xel ku ko man boo demee sa kër moo xam doonte la semaine wala sa jot may la ko wala weer wu jot yooyu yëpp fa tabaarakallaahu yot yokk ay yiw la rek ndax ku dëkk ci ay bàkkaar dëkk di sangu fa tabaarakallaahu yàlla man naa def yére ya dal di mën a set loolu rek la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jublu mu yéene woon ko ci aw xeetam waaye tam gis nga ko imaam wax na ko léegi ku ci mel ni suñu maam Baye Sakho mënoon na koo def ni ko ñeneen gaa di defee waaye tey bu demee ba egsi fii ah ñépp sante ko ko ngir lan fésal gi nga xamante ne doon na ko fésal ba jaami yàlla yi di ko defee nii nga xamante ne noonu la war comme ni nga xamante nii moom itam juróom di suñu maam moom itam noonu la ko daan taxawe ca Saam Njaay tabaarakallaa ba fii ñuy wax ni at mu jot danañu ko fa def comme ñu koy defee ci gox goxaani kon mu mel ni lépp euh, euh, euh, roy la rek ci loo xamante ne lu baax waaye bëgg jaami yàlla yi ñépp rek mën a am sutura mën a am xéewal ñu bokkandoo ko ndax ëllëg yow ma nadduma kullu imaam yi moo tax yàlla nee na bis penc bu jotee kuréel bu nekk rek damay woote siin ndigalul imam kon na fekk imam booba daan leen digal lu baax di ca jiitu daan leen tere lu bon te kenn du ko ci fekk moo tax fu ñu gisee yu baax yi rek ñi yaatal ko ngir jaami yàlla yi ñi nga xamante ne amaana bu ñu wéetee def ko day xaw a jafe ci ñoom ñu ne xay na bu ñu ko nekkee mbooloo mën na gën a yomb ba lu jafe woon gën li gën a yomb bu baax kon bu ko defee ñu ngi jéggulu yépp ci guddaay bi ak euh, jataay bi waaye yépp tuyaabale rek macha allah la góor ga waxoon rek waa ku dem taasu ji ku demul rabun tabaaraka rek dem taasu ji macha allah kon bu ko defee lii mooy li neex yàlla rek nga nekk ci mën a yaakaar lee mooy lu naqari yàlla nga jéem a góorlu ba doo ca dem bu la yàlla dimbalee ba nekkoo ci itam nga yokk sant borom bi subhanahu wa taala kon bu ko defee euh, yaayu daara ji di maire Adam Dieng moom itam biig ci guddi rek mu ñu koy yóbbante ne xale yi ñu ngi may sant di ma gërëm. waaye man mii maa leen di sant maa leen di gërëm maa leen di dégg ko njukkal mboolem lu war ci man def nañ ko ba mu mat sëkk nee na mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di sant rawatina waa cité bi rawatina waa quartier bi lépp loo xamante ne lu baax la rek nee na yëkkati nañ ko jox ko ko ne ko yaa ñu ci doy ci biir lu la neex defal kon nag nee na yàlla mi nga xam ne moo am fay yàlla na leen yàlla fay di jaay Seydou Wujud sallallahu alayhi wa sallam. waaw mbokki Saam Ndiaye ñoom itam ah ñëw nañ léegi ki ci mujj ñëw nii mooy Serigne Babacar Ndiaye fa tabaarakallah ak Serigne Mbaye Diaw ak Serigne Mar Diop ñoom ñëpp fa tabaarakallaahu jóge ca eh, bëréb ba Saam Ndiaye ba ca Daaru Touré Kar Assane nga xamante ne yépp ay dëkk la yoo xamante ni nii ñuy dajaloo di def nii jaamu yàlla noonu la ñu ko daan defee suñu wayjur di wayjuru El Hadji eh, di Abdallahi Ndiaye mii di El Hadji Malick Ndiaye fa tabaarakallaahu nekk fa imaam doon fa imaamu raatib di ko jiite mboolooy mm, njaboot gi itam sax ci loolu màgg ci loolu fa tabaarakallaahu mboolem lu ñu jaamu rek yàlla na leen ko yàlla nangul fulal ñu ko ci daraja yonent bi salaay sallam waaye daw li yàlla yërëm leen yeesal seen yërmane taar ñu ci seen barke waaye tënk ñi ci ak njub ba keroog ñu leen di fekki waaye itte yeeg <laughs> waaw waaw imaam doon na ko junj sànq rek bi ñuy waaje tàmbali mu amoon ñaari soxna yoo xam ne ñu ngi nekk ci mbooloo mi fa tabaarakallaahu seen loxo jotewul seen ginnaaw ah mu doon ñu doon sàkku nag ci mbooloo mi lu ci waay am rek lu ci waay man ñoom ci seen biir rek ñu xool nuñ koy organiser moo ci góor ñi ak jigéen ñi bu ñu paree ñi jël ko séddale leen ko loolu ko doon sàkku fa ndax gis nga ñoom néegu yàlla lañu am jaami yàlla te bu ñu dikkee ki fi taxawal yàlla moom lañuy ñëw ne nangam ak nangam moo tax du du am sañ-sañu noppi ci li nga xam ne moom lañ koy tawat fa tabaarakallah li waroon rek mooy imaam ñu wutal leen bitse boo xamante ni gaa yi ñëw fa tabaarakallah ñu yëkkati di leen si jox waaye suturas yàlla moom moo gën a yaatu waaw lu ñu am rek bokk koo jaamu yàlla yi rek yàlla gën a yokk sutura si incha allah waaw kon bu ko def asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ah séeréer laa waaye wolof ne na saatu du wat boppam li ma leen bugg a xamal mooy kii di Abdallah bu leen xool jëmmam ndax yaakaar ne ko tuuti la waaye tuutiwul radiyallahu anhu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour bu Cheikh Seydi Aboubacar si radiyallahu anhum daf nu jaan wax ca daara ci Tiwaawoon moytu leen deretu waliyu yi mu ne ki namp deretu waliyu moog jaan ju ndaw tuuti teewu koo am dangar moom mi di Abdullahi ca la bokk ñii jóge Saam Njaay ki jur woy juram sëñ Moon Njaay Saam dafa am doom bu jigéen tudde ko Fatimatu bintu Rasul mu fer mu mee ko sëriñ kër Si ba léegi soxna saa nga fa toog naa moom ziyaari général bii te moo daan taajal Serigne Babacar ñamam bu barkeloo mu taajal ko mu raxasu bu paree dem denc keroog nee na ma Serigne si fi jóge kenn ku ne soxla sa yàlla bala yàlla boole toon bi muy ñëw ci kër sëñ Babacar fala ma fekkoon ba léegi mu nga fa te naaxul ndax leeru salaatul fatiha du nekk ci yaram mukk borom di naax loo gudd gudd fan da ngay ànd ak sa xel. sëñ Mor Njaay Saam boobu nag mooy jur waay juru kii maamam boobu dafa dugg xalwa góor gi Abdoulaye Njaay mooy woy juram mu ngoog mu ngoog mu ngoog e maamam dafa dugg xalwa yore kurusam mel ni dañ toog mu yàgg mu am ku ko téye ne ko mel maanaam bàyyi li ngay def bam mu demee Tiwaawoon gis loxo bi mu nekk sëriñ Babacar loxo ba ma gisoon keroog bii la ca la woy woy ba pambay doon doon wax ne nag lënd ak lëndëm fu nu wéetee yaa fa di sunu leer kon yow sëñ Babacar mu ne ko law laa siraaju ko yaambay kon ñu nërmeelu kooka nag mooy maamu kii kon ngeen xam ne wutu ci xaalis mission yàlla la yor yal na ko yàlla taxawu yal ko yàlla suturaal yal ko yàlla taxawu mu ngi liggéeyal islaam ànd ko nag ki sos yoon wii muy imam Moussa ñun dañ fi ñëw ci réew mi bokk ak ñoom fekk leen ñu nekk ci ñu topp seen gannaaw yal na yàlla taxaw ñu yal na yàlla jàppale ko ah nit dina am dara réere ko waaye dañ ne am dara réere ko moo gën am dara xam ko te te sàggane ko kon ñu xam ne li muy liggéey mission bu ko yàlla chargé la ñu nekk ci moom di ànd ak moom yal na ci yàlla defal la ëpp ngëneel ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waajuram boobu daf di sama soppe muy Yaafaan Njaay du ma dem Tiwaawan mukk te seetuma ko lii rek a tax may nettali histoire boobu ñu xam kii fan la bokk ngeen baal ñu am. allahu akbar allahu akbar de es ربنا ولك الحمد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر Gracias. الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر من لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله الله أكبر ولك الحمد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر tutto il الله أكبر لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إله إلا الله عليكم الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر imaam mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah nee na mu mel ni li ñu fi taxoon a daje yàlla dogal na jooxal nañ ko ba pare nee na kenn ku nekk dendeeg sa moroom baalu ko àq mu baal la kenn ku nekk wax alhamdulillah ñetti yoon nee na bi ci des kenn ku nekk na am xel mu dal te xam ni bàkkaar yi nga amoon yépp set na wicc alhamdulilahi nee na jibril alayhi salaam nee na dafa ànd ak yonent bi yéeg ci kaw asamaan nee na daal di taseeg ibrahima jibril ni ibrahima ni yenent bi nuyul ibrahima ibrahima nuyoog moom ñi waxante mu ni ko neel saw xeet nañuy baril lu ñuy jëmbat njëmbati aljana sang bi ne ko lan mooy njëmbati aljana mu ni ko nañuy wax subhaanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illa wallahu akbar moo tax ñu tudde ko salaatu tasbih nee na kon nag ñi joxe dog yi ñi ñaan tëj ba déwén na jàmm incha allah nee na du ñàkk nag kàddu yoo xam ni imaam dana ko joxe ak suñu baayu daara ak chef de quartier bi insha allah kon bu ko defé imam bismillah wa ñi def fatiha astaghfirullah téeméeri yon Thank you. rappel man bismillahir rahmanir rahim 114 fois temer ak fukk ak ñeent bismillahi rahmaani rahim àggal teg ci yaa latiifu 129 téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent yaa latiifu àggal teg ci yaa salaamu 71 juróom-ñaar fukki yoon ak benn yaa salaamu 71 ayatul kursi ben yon alam nasra ku ko man benn أنزلناه بين يون لإيلا في قريش بين يون قل هو الله أحد ñetti yoon qul auzu bi rabbil falaq benn yoon qul auzu bi rabbin naasi benn yoon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 الحمد لله على كل حال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ngeureum ak tiant ci yéen euh da ngeen di xam rek ne soxna yi suñu soxna yi dañu bari ay tolof tolof dañu bari ay tolof tolof ñun ñi sa suñu bop dañu bari ay tolof tolof à plus forte raison ñom comme nekkuñ ci conférence yenta dañu bàyyi xel ne am ñu xam dañu bëgg julli rek yewé ku dem seen yoon.

boobu lañ njëkk jëf ki ci mbedd mi yu des yëpp ci terrain bi lañ ko defee waaye nag gàllankoor moo tax bi yoon bu ñu ko woon def mënuñu ko def ci ci ci mbedd mi mënuñu ko def ci mbedd mi ah eh, soxna yi maa leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm man mënuma leen fay wax dëgg yàlla mënuma leen fay mënuma leen fay de te oustaz kenn mënu la fay yàlla na yàlla guddal say fan wéral say cër sàmm la sàmm sa njaboot aar la iir sa njaboot ci barke laa ilaha illallah la sharika laka wal mulk ala kulli shay'in qadir jàkk ji macha allah imaam jërëjëf imaam yi topp ci moom imaam Baro imaam Guèye imaam Thiam ma bañ a lim ba ndekku ji lim du motal maa ngi sant ñëpp yaayu daara gërëm nañ la sa présence mu ngi ci jàkk fii gis nañ ko wax ji du gudd gërëm nañ ñëpp ñu ngi sant ñëpp